bismillahi rrahmani rrahim rabbi israh li sadri yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su FM seen rajo ci seen jataay bii muy tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bés bu jot waxtu wi dellu si na di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune sal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 waxoon naa leen bi muy téere bi ma yor moom móol bi ban laag kana ko yu nu deme ndax riyaadu saalihin am na yeneen yoo xam ne boo ko yoree mën nañoo ñàkk a bokkale ndax ci téere yi barkeel la bokk waaw dafa am ci penc mi téere yu barkeel téere bi ca la bokk waaw tabarkàlla ndax boroom bind na ko te politigu ci boroom bind na ko te ngàññu ci kenn borom bind na ko te critiqué wul kenn moo tax téere yu mel noonu day barkeel waaw bu bu boroom dellu si woon boo ko joxoon bind eh, big bu xonq peut-être bu ci dee corrigé du bari téere yu mel noonu dañuy barkeel lool tabarkalla bii nag ci la bokk waaw ak yeneen ak yeneen dafa ne ci hadiis bi doon jàng démb maa min muslimin yaxrisu xarsa illa kaana maa ukila minhu lahu sadaqa ku ji am nji mbaa nga jëmbatum njëmbët ji mooy dangaa jël jiw wi kemb bi walla fepp wi dugal ci suuf njëmbat nag mooy ni ñuy def ñam bi njëmbat boo demee uh, dañuy jaay ñam bi bant bi lañuy jaay bant boobu ngay wàqi def ko ci ba demee fële ca ñoom euh, seen ca mbërën nun lañ koy defee waaw dangay jël bant bi moom ngay euh, dugal ci suuf loolu moo tudd njëmbët moo tax ñaare duñ wax ji ñàmbi jëmbët ñàmbi la ñuy wax gerte duñ ko jëmbët dañ koy ji waaw gerte duñ ko jëmbët dañ koy ji dugub nag danañ ko ji danañ ko jëmbët bu nu masaan di bay dugub sunu sëriñ ba alxaaj màggat jéey bu daan topp tool bi day gis ne fii bi fi machine bi jaar ñuy ji mën naa am dafa tëboon wala dara laxasu ci ba ba foofu dugub ji saxut mu am dugub joo xam ne bi biñ koy ji ku mel ni alaaji sàll day tibb ci loxo bi rek xëpp ci pax mi ndax bëgg gaaw wàcc <laughs> seet alaaji sàll tibb loxo bi rek au mucc xam nga bu daan ji dugub dañuy suñ ñetti baaraam rek def ci tooba gi bu saxee di lu bari moom nag day tibb loxo bi xëpp ko ci pax mi ndax lan ndax ndax pepp mi gaaw a jeex ba ñibbi cey waaw waaye tooba googu màgg jee bu ñu ma saan agsi ba ci tooba googu moom am na nu mu koy defee ba wàññi ko ba wàññi te bu ko wàññee du ko sànni da koy jëmbat te bu ko jëmbatee day ànd ak kii ñoom ñëpp ñu bokk du ndax bàq bi tooy na keroog kon ji dafa am jëmbët am waaw mu ngoog ji daal mooy fepp wi nga def ci suuf jëmbët mooy gàncax gi nga samp ci suuf waaye lu ci ma waaye mën a def alayhi salaam nee na luñ ca lekk rek ab sarax la boo génne luñ ca lekk rek ab sarax la boo génne seetet ñu ne ha mu ne luñ ca sàcc it wa ma suriqa <laughs> luñ ca sàcce gis nga fii nag bind bu am re bu rëy ngi fii mooy càcc googu daawuñ ci dagg loxo moo tax mu mel ni yonent bi mi ngi légaliser càcc googu waaw mi ngi mel ni nag laa wax ndax wax ba tudd tool bu ñu sàcc ci waa ji bu ñëw ci tool bi duyut saako saakoob gerte déedéet ëpp naa def duyut saakoob gerte waaye dafa romb tool bi buddi ci ak gooñ nàbb di yëy loolu sàcc na waaye may nañ ko wala mu fekk ñu def jallu gerte mu tibb ci loxoom di yëy sàcc na ca waaw wala mu romb tool bi seen gumbu mbool bu baax mu fàq ko yóbbu këram lekk wala mu romb toolu mboq bi mu bokk ca aw mboq yóbbu loolu la ñu maa suriqa waaye ñëw gaare sa oto jël ci ñetti saako ñeent def ca ah loolu nag moom benn affaire la waaw lu moom beneen affaire la <laughs> waaw wala wala wala jëlub naaftik ci sa sareet yóbbu loolu tam beneen affaire la moo tax mu tudd baatu wa ma suriqa lahu minhu sa sadaqa wa ma suriqa minhu lahu sadaqa nee na wa ma yazra'u ahadun illa kaana lahu sadaqa maanaam lu ca waay wàññee lu waay wàññee ca tool ba loolee sarax la ci waaj ci nga xam ne moo bay tool bi moo tax mbokk yi ndekete kon mbay du la ngay yóbbu ca marché ba képp wala coopérative ba képp ndekete yoo mbay picc mu ca jaar lekk ci am nga tuyaaba nit ku ca jaar lekk ci am nga tuyaaba ku ca sàcc am nga tuyaaba waaw am nga sadaqa waaw kon baykat yi noonu noonu naa nar a bëri sadaqa la Hmm? waaw nee na ci beneen riwaaya beneen riwaaya falaa yaxrisul muslimu xarza waaw wa yaakulu minhu insaanun wala daaba wala shay illa kaana lahu sadaqa nee ab jullit du jëmbatum njëmbatam jëmbatum njëmbatam aadama lekk ca wala bàyyi ma lekk ca wala leneen lekk ca leneen lekk ca nag mooy picc yi lekk ci ndax nit munta muusa muusa muusa bu bay ba noppi te ñett yi kenn du ca lekk doomu aadama lekk ca walla bàyyi ma lekk ca wala picc lekk ca mu nekk ab sarax ci yow mu mbokk yi bu bu bu ndiiraanum picc ñëwee sa tool dal picc mu nekk jëlu fepp fepp wu nekk nekkub sarax ñaata ngay am kenn xamu nu mu toll donte nag picc yi léeg-léeg ñu topp topp toolub jàmbur ni ko fuuf picc yi mën nañoo jaar cib tool ni ko fuuf lépp njëréer yi mën nañ ko waaye loola picc yi def nag xam naa wàññi nañ sa dund waaye yokk nañ say tuyaaba waaw yàqal nañ la fii defaral la fële allahu akbar yàqal nañ la fii waaye defaral nañ la fële ah, waaw mu ngoog yàqal nañ la fii waaye defar nañ la fële lu am am solo la kon lu waay def ci yii rek am nga sarax waaw benn bis sunu waajur wa bàyyi mbay yal ko yàlla yërëm <coughs> may nettali dañoo ne ci sareet jóge càlle jëm wetu tey ba cekkeen dëkkub ñoom Corne Seck duwaañ boobu nga xam ne <laughs> moo gën a lakkale ci duwaañ yi <laughs> waaw dëkkub Corne sekk ak sunu dëkk sorewut lool waaye nu jóge ci dëkk bi jëm ci dëkk bi la war ci sereen <coughs> aw dàllam wadd bi dàll bi waddee mu wacc wacca des ñu ne ko lu xew mu ne ki for dàll wa njëkk bu foree wi bu leen boole muy ay dàll su ma yóbboo wi mu yóbboole du ma jariñu du jariñu kenn mësu koo gis mu néew loolu de xalaat la tabarkàlla yàlla na ko yàlla def ci téere jëfam na ko yàlla yërëm waaye fal suuf ci kawam bàyyi mbay addis boobu kon mbokk yi di addis fukk ak juróom-ñeent mën naa soññe waaye mën naa dalum xelum bépp baykat waaye mbokk yi ndax mooy ko bay rek déedéet gis nga moodu moodu yi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew ci réew mën a ña nga ca waaw di daan seen doole di xëy di yéeg ci train yi di tarxiis di kopp-koppal lu nañu dugg ca léeg-léeg ñu am aw sant mille wala deux cent daal di koy yónni xale yooyu ñu yónni ci àdduna si léegi ñu yóbbu xaalis waaw xale yooyu ñu yóbbu xaalis ñu envoyé xaalis bi nga dem retiré ko waaye yónnee ko soxna si soxna si dem retiré ko di sàn daal di jënd ci ceeb tàcc dugg ci mu ndugg loolu moodu moodu ba yónnee dépense ba képp ku sukk ca ndab la na yëg ne moodu moodu booba am na ci sadaqa waaw ku sukk ca ndab la bu ñu noppee ca ndab la teg ko fale ganaar gu cof ca ndab la muus mu ca lekk loolu lépp kaana lahu kaana minhu lawu sadaqa lu am solo la waaw ndeysaan loolu tam dañ ko ciy dégg maanaam nit ki nga xam ne nit ki xam ne ciw ñaqam la nit lekk ah kooku lekk ci sa ñaq wi lekk ci sa wërsëg wi hmm? am nga cab sarax boo xam ne bii bët bu set bu baamtoo mu baamtu waaw waaw mu tax tukki yooyu am na solo lool mbokk yi tukki yooyu gone yi di tukki am na solo lool malheureusement sunum réew ak réew yi koy def dañ koo organiser wut waaw dafa jaadu woon réew mu mel ni Sénégal te ay doomam di dem bitim réew naan àgg mbaa dee naan barsàq mbaa bars barsa dafa jaadu woon diggante réew réew ci wàllu diplomatie ñu bàyyi visa yi nga xam ni kenn mënu koo am maanaam bëgg fee jóge dem Espagne ngay xale bu góor waa Espagne la duñ la may visa mukk ngeen xëy nekk ay téeméeri téeméer ci ambassade ba ku ci nekk joxe vingt-huit mille trente mille ñu boole lépp ci seen kees ne wàcc nañ waaw la ñëpp bu ñuy may ña kenn lañu ñu may mbaa ñaar loolu daa war a dañ ci Afrique Afrique da ko war a bañ Afrique daa war a bañ kuy jóge ci réew yooya di ñëw fii ñu may la visa nga ñëw ku jóge fii di dem foofa seen ambassade yi duñ leen nangoo may visa waaw te da ngay fay xaalis te da ngay rang te da ngay fanaani su fekkee ne tëj nañ bunt boobu mënoo jël avion dañoo tëj bunt bi léegi nooy def te bëgg ngaa dem te bëgg ngaa dem waaw noonu da ngay def léegi nag bu ñu demoon wax leen ne loolu da loolu daa war a dakk ci dëkk bi maanaam bu nit ñëwatee yor kayitam yu leer dañ koy may visa mu dem Espagne gële su fekkee daa bëgg dem Italie dañ koy may visa mu dem ba bëggee dem màkk noonu léegi suñ la mayee visa dañ xam yaay kan loo fi wut waaw kañ ngay ñibbi nga dem nga dem fi ne liñ koy tere moo tax nit ñi bëgge ko nii ñu ko bëggee te itam buñ ko organiser rek mu amal njariñ ñiy dem amal njariñ ña ñuy fekki amal njariñ ña fi fiy bàyyi moo gën rek bato ba këpp na quinze morts bato ba këpp na vingt-quatre morts bato ba këpp na huit ñoo sobe rek loolu ëpp naa def nan ci waxtaan dara warul nit ñi dugg ci gaal yi lu dul rek dañoo tere yoon wi ñu war a jaar lañ leen tere te ku fab am muus fekk ko ci pantre bi nga kar ko bu munta génn ca fenêtre ba munta génn fenn ci sa kaw lay jaar laaj ko muus yi ci sa kaw lay jaar de ramasser la nga jaaxaan mu génn waaw loolu rek lay tekki kon organisation boobu def ci baax tegat kat jenn waaye daf koy organiser moom bu amee cinquante personnes waaw waa yoo xam ne jii day day organiser tukki bi ñu ne am na cinquante personnes moom waa ji xale yooyu ku ci nekk jox ko deux cent cinquante mille waaw xale yu ku ne jox ko deux cent cinquante mille mu am douze million cinq cent mille waa ji am douze million cinq cent mille te gaal gi cinquante la ci def cinquante yi ku ne jox na ko deux cent cinquante mille mu am douze million cinq cent mille léegi jël gaal ga def ci gone yi wuteeg ñoom Gàmbi mën naa am sax waa ji xamul fu yoonu fu yoonu Espagne mën naa am xamu ko waaye ki bëgg a dem rekk daal di jàpp ne moom war naa mën a dem ci ci ci ci gaal gi mu daal di ànd ak moom mu dem ba fuu gaal gën a këpp ci suuf wala mu mbëkk dara lépp des fa loolu itam nañ ci veillé ala kulli xaal tukki bi daal ki tukki yónnee dépense seen waa kër di ci añaka reer ak ndékki kutiba kutiba lahu kutiba minhu lahu sadaqa waaw kaana lahu maa ukila minhu sadaqa aw kaana maa ukila minhu kon nag di courage di courage ñu waxaat ci beneen addis muy addisu ñeent fukkeel ah, ñaar fukkeel bi ñu jële ko tey ci ba tey ci euh, jabir ibn abdullah jaabir ibn abdullah nee na yonente neena nee na araada banu salima araada banu salima an yantaxilu xurbal masjidi dafa amoon benn famille famille bi ñu ngi tudd banu salima noonu la ñu tudd ña nga woon ca almadina waaye seen kër daa sori woon jumaa ji seen kër daa sori woon jumaa ji ñu bëgg toxu jege si jumaa ji ñu daal di jënd ab pàkk waaw dafa ko ba mu baax li des mooy fas yéene tàmbali liggéey pàkk bi ndax ñu toxu jege si jumaa ji xibaar bi àgg ca sallallahu alayhi wa fa balaxa dalika rasulallahi xibaar bi àgg ci yonent ba xibaar ban xibaaru bani salama banu salama dañoo bëgg a toxu jege si jàkk ji xibaar bi àgg ca sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen mu ne leen innahu xad balaxanii annakum turiduuna an tantaqilu xurbal masjid waaw mu ne leen dégg naa ne dangeen a nekk ci waajaayu toxu jege si jàkk ji loolu leen wax dégg naa dangeen a nekk ci waajaayu toxu pour jege si jàkk ji xaalu naam ñu ne ko waaw dañoo bëgg a toxu jege si jàkk ji loolu nga dégg daal loolu lañ nar mu leen bani salima ah diyaarakum bani salama diyaarakum tuktabu athaarakum waaw diyaarakum tuktabu athaarukum bani salama ñu ne ko labbayk mu ne ko toog leen fa ngeen dëkk tey ñëw ci jàkk ji ñu leen di bindal tuyaabay jéego par jéego ba ngeen agsi bu ngeen dëppee dellu seen kër ñu leen di bindal tuyaaba jéego par jéego ba ngeen àgg ah waaw waaw ba ñu salama ñun kay xalaatuñoo toxooti seetit xalut xalaatuñoo toxooti ndax inna bi kulli xatwatin daraja waaw looloo tax ñu ne ah nun kay kon fomm nañ toxu ba xoolal ko sori jàkk ji te bi nga déparé sa kër jéego bu ne tuyaaba jéego bu ne sippi bàkkaar jéego bu jéego bu ne sippi ba nga agsi nga dëppaat di ñibbi mu toppalaak noonu jéego bu ne jéego bu ne ba nga àgg dama ne mbokk yu kooku li muy am boo ko xamee du toxu di jege si jàkk ji loolu leen yonti ti waaw ba ni salima ñu ne ko labbayka mu ni diyaarakum tuktabu athaarukum diyaarakum tuktabu athaarukum mu ne dëkk leen fi ngeen dëkk rek waaw bu ngeen ñëwee ci jàkk ji peut-être ngeen dox mil pas waaw téléphone yi léegi sooy dox jóge sa jàkk ak sa kër dafa lay konteel jéego yi ngay jéego ñaata la benn application la bu nekk ci téléphone yi waaw nga xam ne man ngaa xam sa diggante kër gi ñaati jéego la man ngaa xam diggante jàkk jéeg kër gi laa bëgg wax ñaati jéego la dem bi ñaata la dikk bi ñaata la booleen boole ñaata nga am waaw téléph téléphone yaa ngi koy def bu dee ñuy sport yi noonu la mu bëgg laa doxloo six six mille pas par jour waaw six mille pas par jour maanaam juróom benn téeméeri juróom benn junniy jéego war na ko war na koo dox mu diggal ko ay peut-être ay trente minutes wala lu ko jege macha allah waaw loolu gaañaa ngi koy def ci téléphone yi sunu genre yi ñu ngi koy jéem a ci wàllu sport bani salama diyaarakum tuktabu athaarukum bani salama bàyyi leen seen kër fa mu nekk toog leen fa ngeen dëkk bu ngeen déparé foofa ñuy bind tuyaaba ba ngeen agsi moo tax ba demee almajina ndeysaan kaar baa ngi taxaw di yóbbu ña sori di leen jëli waaw jamono ji ñuy defaraat jumaa jooju jumaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te buuru makk bëggoon a toxal ña dëkk waaw ku ci nekk daf lay woo ba nga ñëw mu ne la yaa dëkk ci kër gii nga ne waaw mu ne yaa ko moom nga ne nga génn sa titre jox ko mu ne la kër gi dang dang ñu koy wecceem dang ñu koy jaay wecci ko mooy nga wax ne maa ngi ko jënde woon seize million kon delloo leen ma ko ma dem loolu mooy wecc ndax ginnaaw yonent bi moo soxla sama kër gi jàkkaam joo soxla sama kër gi delloo leen ma li ma ci defoon nga gis ko xam ne dafa naan ah man de dama koy jaay seize million laa ci defoon buñ ma joxee vingt ma dem ñaar ñëpp la buur màkk ba daan jox seen yëf te daawul dégg naa daawul bindal chèque déedéet espèce la lay jox ci ci rial saoudi yi bu noppee ne la ginnaaw dañoo da nga ñoo wecc kër gi wala da nga nu koo jaay léegi bagage yi fi nekk nun soxla wuñ ci dara li nga ci soxla lépp dindi ko soo noppee nga wax nu ah waaw waaw xam nga loolu ku koy toxalee nit kurpañ du jóg ku koy toxalee nit kurpañ du jóg te penc mi léeg-léeg gis koo xam ne kii toogin fi mu toog ak ni mu toogee du noonu bu ñu doon liiñe daa war a jóg waaye bu ñu waxtaanee woon ak moom ci nii teg ci loxoom lu wér di daal di jóg ne mu ngoog mu jàll ci kenaan jàll ci keneen ba léegi gis ngeen jàkk ji penkook sow bëj gànnaar ak bëj saalum côté yépp a yaatu léegi tabarkalla yàlla na yàlla def lépp ci téere jëf yi buuru màkk bi nga xam ne moo doon taxawee liggéey yu rëy yooyu te tàmbali woon ko muy ndeysaan almarhum malik Malick Fahd tabarkàlla nettil naa leen keroog ba ñu koy denc ñu koy seetaan en direct ci eh, télévision saoudia ba nu ko dencee fe man damaa feebar trois jours xawma ma quatre jours waaw waaw bóorub Makka Malick ñu gàddu ko ñëppi Chine ñëw teg ci suuf fi fi ra fi rango néew yi yem mu sës ci jenn waay waaw jenn waay joo xam ne peut gis ko daana jafe gis buur bi daana ko jafe tey digganteem ak buur bi benn bàmmeel doxu fi ki faatuwaat di ñëwit ku man di doon mooy sës ca buur ba mu ne aw <laughs> allahu akbar mu jax takk ala kulli xaal mbokk yi maa ngi ci darsu ñaar fukk ak juróom maa ngi ci buntu fukk ak ñett maa ngi ci hadiisu ñaar fukk alayhi salaatu di wax ba ni salama jarul ñuy toxu nañ dëkk fañ dëkk rekk ndax ci la ñuy ëppee tuyaaba mbokk yi bunt bi am na solo lool ndax mu ngi nuy jàngal yi ñuy def ba am tuyaaba dem jàkk ca la bokk day bëri tuyaaba lool ndax booy dem jéego yi boo jël si jéego yi waaw abul munzir ubay ibnu kaab nee na kaana rajulun laa alamu eh, rajulan abaada min al masjid minhu mu jenn waay nekkoon na jina xamuma koo ko gën a sori kër mu ne jenn waay nekkoon na jina xamuma ku ko gën a sori kër jàkk ci waaw waaye daawul rate benn julli maanaam genn julli daawu ko rate bu fajaree boo ñëwee fekk ko fi tisbaar noonu takkusaan noonu timis noonu gexe noonu am ñu ne ko tee ngaa toxu jege si jàkk ji am ñu ko wax loolu tee ngaa toxu jege si jàkk ji mbokk yi teg leen seen baaram foofu tee ngaa toxu teg jege jege si jàkk ji ñu seet bu subaa lan lay tontoog lu ca gaa yi di teg dañoo ak suñu war yëkkatee jotaay bi moo tax ñu yemale foofu bind bi ñaan tawfiix ci penc mi ak penc yi ko wër ñaan ci jàmm ak euh, penc yi ko wër yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen nangul nu nangul leen yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara yanaan daloon ci waxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu